ay taalibe lañu balaa lépp. nee na ñun ay taalibe rek lañu. Euh, chaque fois dama koy wax ne ma Touba moom bu ñu ma yónnee. nee na waxtu ne danaan Touba moom bu ñu ko yónnee. lu mu guddi guddi guddi dama ci am mbégte. lu guddi guddi guddi ci am mbégte lool. waaw ndax fii daanaka mën naa ne ba may am ñaar fukki at. xaw fu dul Touba bi mu am ñaar fukki at ba léegi la fi tàmbalee ñëw. waaw njaareem ak tuubaa laa xam. njaareem ak Touba rek la xam. kon su ma demee tey ba président. Bassirou Diomaye Faye. nee na bu demee tey ba son excellence président Bassirou Diomaye Faye. ak premier ministre. ak premier ministre Ousmane Sonko. monsieur Ousmane Sonko. ñoom ñaar ñëpp ci ñu yendoo liggéey journée ba timis. ñoom ñaar ñëpp ñu liggéey journée ñu tànn sama jëmm ji ne ma demal demal teewal fa gouvernement bi. ñu tànn jëmm ni ko demal teewal li ci wetu Serigne Sidi teewal gouvernement bi. ndax bésub sëñ Abdoul Ahad moom. ndax bésub Serigne Abdoul Ahad moom. lu ne nga ca. lu nekk nga yaakaar la. yaakaar la. bésub la. bësu boo xamante ne ni lu ca waay def. bis la boo xam ne lu ca waay def. balaa dara da gis. balaa dara da nga ko gisal sa bopp. loolu suñu ngëm-ngëm la. nee na loolu suñu ngëm-ngëm la. donc bu ñu dénkee lu toll ni réew. nee na kon nag bu dénkee lu toll ni réew mi. bés bii dëgmal. bés bii dëgmal. yaakaar la si ñoom nee yaakaar la ci ñun Mbacke. Mbacke lii moo doon tànk yi. nee na Mbacke lii daal moo doon tànk yi. ma am nag mbégte comme ni ma koy waxee. nee na nag mu am mbégte comme ni ma koy waxee rek. ñëw ci kër goo xam ne fii laa jébbalu. ñëw ci kër goo xam ne fii la jébbalu. waaw sëñ Jili. nee sëriñ Jili. mu sëñ Abdou Ahad Mbacke. moom Cheikh Abdou Mbacke. sama sëriña. nee ab sëriñam. sama xarita. ab xaritama. daanaka wëy jurul. nee daanaka wëy taxawuma. taxaw ko lool. ci moment yu am solo ci sama àdduna ci moment solo ci dundam. donc tey mbégte mi ma am ñëw fii. kon daal mbégte mi mu am tey ñëw fii. ab cant rek la. duma ab cant guddal kàddu yi. nee du yi. di muy damay sant suñu borom rek. nee day sant suñu borom rek. di sàkku ñaan. di sàkku ñaan. di jiital ñaan gi suñu waaju baax ji. di jiital ñaan gi ci waayam ju baax ji di suñu waay. ndax moom su amee jàmm ñun ñu am jàmm. moom bu amee jàmm moom Serigne Cheikh Thioro ñu am su amee ndam ñu am ndam. su amee ndam ñu am ndam ndax mat na liñ koy doyee. ndax moom koy doyee. royuwaay la si ñun. royuwaay la sunu kuréel saa su taxawee. sunu kuréel saa saa su waxee. saa yu waxee rek. ñu xam ne dëgg jib na. ñu xam ne dëgg jib fulla jib na. fulla jib na. fayda jib na. fayda jib ko fonke moo tax lu mu am. fu mu taxaw. fu mu taxaw fu mu taxaw ñu taxaw ca wetam donc mbégte la ñuy am di ànd ak moom saa su ne kon Mbàkke dong lay seede ni mbégte la ñu am ak moom saa su ne ndénkaal yi daañ ko sàmm nee ndénkaal yi daañ ko ndax suñu njëriñ la ndax suñu njëriñ suñu sant suñu cant la suñu cant la donc bëgguma guddal nee na kon day bëggutu guddal Mbàkke li muy sàkku rek mooy nga ñaanal nee li muy sàkku rek mooy daal nga ñaanal ñu ba yan wii nga xam ne suñu borom teg na ko suñuy ndodd ñaanal leen te ñaanal réew mi ba yan yii suñu borom teg seen loxo ci barke sëñ Abdoul Ahad ak barke bés bi. ci barke Cheikh Abdoul Ahad ak barke bés bi. yàlla téeñal ñu. yàlla sunu borom téeñal leen. loolu rek moo ñu fi andi. rek moo ñu fi andi. ak di yeesal sunu kóllëre. ak di yeesal sunu kóllëre. sunu taalibe ak sunu taalibe. ak sunu yaakaar ci ñu mag ñi yaakaar. ci si mag ñi. ci mag ñi. ak ci yoon wi mag ñi teg ak ci yoon ne ci lañ bokk. ndax duñ ci mës a tegee. ndax duñ ci a tegee bu mu. jërëjëf